Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent. Il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www

waaw lii sant yàlla rek nga Baye Mandione moom suñu grand la quoi nit ku baax la waaw ku yëg doomu aadama comme moom bu xewlee woo ñu ko dañuy ñëw quoi waaw. initiative yi noo ko jàngat ak noo ko gisee. waaw lii lii geste la moom yàgg na def yii sax xëy na lii moom mooy mooy bi ñu yëg rek mais yàgg na def comme genre yi quoi. waaw dañuy gis bu nekkee ci combat nekk ci euh, lu xaw a jege weer bi muy bëre day xaw a làqatu xaw a nëbb mais dañ gis tey ñëpp tey ànd ak moom ci bis bi mu dugg ci biir nit ñi à 100 pour waaw c'est normal parce que doomu mënoo am ma Baye Mandione am na façon bis bu ne façon bis bu ne am na ko bisu rëy yi mu bëre nee ma da gaaw a bëre wànde mais am na bis bis yi mu bëre moo gën a rëy bis bis bi bokk na si bis yi gën a tuuti yi mu bëre bi mu jëm nii waaw bokk na si bis gën a tuuti. mais mi ngi bëre euh, ndaanaan muy Zarko. Hmm. waaw Zarko ndaanaan la champion la jàmbaar la mais tamit moom tamit na xam tamit jàmbaar lay bëreel waaw. adversaire bi dafa xaw a wuteeg tuuti ak yeneen adversaires yi ci wàllu quinze ci wàllu euh, fëggu. c'est-à-dire doole. ah moom tamit waaw waaw waaw loolu li nga wax yëpp mu ci moom jàmbaar la am na fëgg mais nag Baye foofu xam na la ko ciy xaar moom Baye Mandione. waaw xam na waaw parce que man gis naa lu ma mosul lu ma gëj gis si moom gis naa lu ma gëj gis si moom respecté làmb ji di entraîné normal di wàcc géej waaw kon Baye Mandione ko respecté làmb ji waaw xam na bisu lu mu ko jaral xam na fi mu ko war a yóbbu. foo toll sa diggante ak Ada Fass. waaw maa ngi ci pare naa. combat de. waaw am naa combat moom combat yëpp combat la waaw. yaa ngi combat capital. waaw combat capital la moom combat yëpp combat capital la combat boo jël combat capital la. ñenn ñi ñu ne waroo koo jël ndax xale la bi mu duggee ci làmb yàggul. waaw fii moom ku ne ku ne sa xalaat ngay wax rek parce que analyse ngay def rek mais en tout cas man li may wax mooy làmb ji muy mel ni may bëri sama premier combat arène. lu waral loolu. Hmm? lu waral loolu. waaw parce que comme li nga wax rek ñi nee ma ko jël moo waral loolu waaw. kii de. waaw waaw jàmbaar la champion la waaw ndaanaan la moo ma jël ko. dama la dégg bi euh, doo ci wax wax ju ji moo laaj loolu. waaw patak organisé patak job patak laqatu euh, waaw loolu ah. laaj waaw. bëgg naa ci yow bëgg ci day maa ngi lay jaar bu baax maa ngi lay bëggee di nuyu waa site bi aussi di nuyu Dembélé di la ziar bu baax di rafetlu liggéey bi. Euh, di nuyu ñi ma fekk aussi wax dëgg yàlla di rafetlu initiative bi di ñaanal Baye Mandione bu baax a baax lii mu def ren lépp li mu ci ñàkk rek yàlla na ko yàlla ful waaw vraiment ñëpp kontaan nañu ci combat combat bu am solo ci ci carrière am dañu daan gis mbër bu jóge bu nekkee ci combat bu combat bi a jege dina xaw daw nit xaw a laxul gis tey mu wootee li nga xam mooy ndogu caare bi yëpp génn ak ñu dëkkul caare sax ñëw ànd ak moom noo gisee initiative. waaw moom euh, ku xam Baye Mandione xam ne nii nga ko xam ne moom wax dëgg yàlla moom laaxatul ci lenn dafa naa ne ñun sax yenn saa ñoo koy forcé si yu bari waaw mais moom amul dara loo xam ne da ciy làqatu parce tey lii lu baax la da nga koy fësal ba àdduna bi yëpp waaw ku si nekk tey di mën a jàngat si def lu baax lii muy def nag yombul ndax dafa génn xaaj bari wax dëgg yàlla ñoo am ñu am ci lu leer waaw rey ay xaram xam nga rey ay ginaaram joxe ay berne yu dul jeex wax dëgg yàlla boobu ba léegi gaa yaa ngi ci kon loolu nit ñi dañ ca war a jàngat rek loolu moom dafa gaay dañ ko wara a jël rafetlu ko ñun ñi jàngat ci daal vraiment. sa digganteeg euh, Baye Mandione ñu gis ni ki sonné ci amé combat ak bu amul combat sa ak mom relation bi lan la. non ma ak mom euh, dañu wéssu làmb nak kii sama mag la kër gi man man naa tay suñu kër la ah nak sama dérèt la ño bokk ben baay dafa naa kon bu amé làmb bu ñu ci gisé rek ñi xam dëgg duñ ci commenter duñ ci wax sax waaw mais wax dëgg yàlla ay lamb ni ma ci taxawee sax man naa ne waaw dama ko xeeb sax wax deug yalla mo tamit diko ñaanal ndam sax ci lii mu jëm yalla nako yalla defal ndam defal ko jam nak vraiment nit ku bax la mom alalam duko bolé boole kenn wax dëgg yàlla lu mu am man nako bokk nit ñoon bugul sax kuy jàmbat ci wétam wax deug yalla dafa na né tay ñun ñi dekk ak mom xam nañ ko wa kërëm tamit xam nañ ko bugul nit di jàmbat nit am problème non non da ci dam ak yow ba jeex limu yor la yëkëti jox la dila conseiller dila taxaw vraiment nit ku bax la dal bu ko yalla fay xolam mom wax dëgg yàlla dina wéssu fi inshallah dégg naa mais ñoo gën a kontaan di leen nuyu bu baax di leen ziar di kontaan ci yéen liggéey bi rafet na moom macha allah ñu ngi bég bu baax. MCS International, études et formations à l'étranger. Vous êtes élève du terminal, bachelier ou étudiant, obtenez votre admission dans les universités françaises, américaines ou canadiennes. Grâce à MCS International, vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger. Contactez-nous vite au 33 868 69 28. maa Faitier, lay fay Sénégal waaw dañ leen wax ni yéen ñu ya ja ñu gis sa frère di Baye Mandione ngeen bokk ndey ak baay mu jëm ci préparation combat organiser ay ndogu ñu gis tey caare yëpp gën ànd ak moom noo ko en fait di si kontaan rek xam nga di wax ne affaire jullit la si weeru koor lañ ne te weeru koor moom weeru weeru lii la promo eh, lépp loo def rek yàlla def la koy duubaleel comme nit ku oor ba ngoon xiif nga jox ko lekk rek loolu tuyaaba la dañ koy ñaan li nga la jublu pour nit ñi moo kontaanee li nga desee si carrière am du ma ko ñaanal combat des si carrière am mu kontaan ko. loolu laa koy ñaanal. na trop. waaw bëri na coono mooy coow ndax combat dem li nga xamante ni mooy tax combat bi jar da ciy dem en cent pour cent loolu moo tax bàyyi ma boo ko tëggee doo perte waaw du nuyu Zarko tamit suñu grand la xam nga mais maa ngi ñaanal suma mag bàyyi ma ñun yàlla mooy ko ndam ndam lu rëy. est bi fi mu leen di yóbbuwaat ci biir làmb ak leen ciy xaar. waaw mooy nga daan rek tey bu ko yàlla mayee ndam man naa bëri waat ak ñu bëri da bàyyi ma ñoon xale bu ndaw la dafa teel a bëri rek man kër gi man rek la fi mag waaw boo xoolee jigéen ñi fi nekk ak góor yi ñoo ñoo ko mag suñuy mag lañ xale bu ndaw la dafa teel a bëree mën naa maat leneen loo xamante ni bokku la sax li li mu loon si laamu. depuis sa diggante ba léegi lu gars yi waxaat si yow. waaw maa ngi di déglu waaw Sam jox na ma avance problème adversaire la am waaw mais maa ngi ku ma boole rek ku ma la am rek ma xam ne ko la ma la am boole te ñaan yàlla may ma si ndam. mais koo jàpp ne mooy sa adversaire. non bëri na instant yi xam nga loolu koo fi wax rek danaan daf ma pare. waaw yooyu dafay xew léegi xam nga man daal maa ngi sama ruq di entraîné di liggéey doole xam ne adversaire bu ma jox daal du ma bett daal. teg naa maa ngi lay fay. faïence yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle de ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police Euh, c'est le numéro de téléphone 33 820 39 95 alors 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nag dañuy ubbi du lundi au dimanche à demain ne kon nag boo bëggee ay yu dawal gaaw seeti à établissement Khadim Rassoul ña nga nekk foofu ca Parcelles marché police établissement Khadim Rassoul le choix. alayka tiim kaam mangala yaara